kooram yàqu. te ku ah. sa koor yàqoo noonu. Ah. ñaari weer yu taftaloo ngay weer ngay woor. d'accord bu ci dogee benn fan lam doon def yàqu. maanaam dañ koy commencé pour mu leer maanaam xëdd ba pare ñu xëdd ba pare soxna ak borom këram maanaam kottante. akolaat ah, waaw waaw dama loolu ah mën nañu ma ko nañu ñoom dañ koo tàmm. ndax loolu góor ñëpp ko man. waa léegi loolu. kon nit ki bu bu ko mënee def sa du yàq kooram garaaw. moo tax ma ne ndax léegi góor ñëpp a ko man. d'accord bul def rek kon comme ginnaaw dañ ne góor ñëpp ñu ko. waaw nañ ko tere góor ñëpp. na ko góor ñëpp baax. mu maase. <laughs> ndax da ngaa jàng ne uhilla lakum <laughs> laylata siyaami mhm. arrafasu ilaa nisaayikum mhm. waaye waxul fajara siyaami. waaw waxul nahaara siyaami. Mhm. am déet. Layla la wax. <laughs> Layla la mais franchement est-ce que biisu biisu ñu baal ma biisu wallahi li ñuy jàng nii dañ koy laaj bu baax. fekk soxna rek mu toog nga biisu ko. fekk da nga awoo est-ce <laughs> sa borom kër mu laajte lu la sa borom kër <laughs> fekk sa borom kër maanaam mu toog nga biisu ko wala moom bi ndax loolu mën na yàq sa koor. waaw dama ne. ma dellu si waat mhm. lépp loo xam ne mën naa yóbbu nit ci mu weesu foofa. Euh, lislaam day wax bul àgg fii ndax boo weesoo fii fii nga jëm. d'accord. Ah, bul ko teg fa dara nag. ko jege. soo dégg ñu ne sib nañ ko rek. mooy bañ ko dafa gën def ko. Ah. dëgg yàlla wa shukuran. macha allah jërëjëf <laughs> balaa ñuy demaat léegi ci <laughs> jàngkat yi bëggoon naa fi fi yaa Seyda dugg ñu taxaw un peu ci place bi bi jigéen am ci diine ñu toll jamono joo xamante ne jigéen ñi léegi euh, njaaloo ñu baal ma ci kàddu gi ñu ci bari defatuñ ko muy dara euh, ngir euh, am iPhone bu mujj génn wala ñu am oto wala leneen ak leneen dañuy dem bay jaay seen ngor te am jigéen place bu am solo bu ko yàlla jagleel ci diine waaye itam ci dund en général mhm. waaw xam nga place bu mu ko jagleel dañ ko cay jàpp yee ko ca joxoñ ko li nekk dëgg la loo ko may mën naa dugg ci foo xam ne fii du foofu dëgg la am penc bu ñu demee ba tollu foofu nga xam ne nit mën naa def naka sudul noona ndax bëgg benn téléphone wala bëgg nangam dafa fekk na y ko soos chose mhm. garab bi suñu borom wàccee suratu nuur mhm. wax niñ koy attee mhm. dafa ne fu ñukk tàmbali nag lépp loo xam ne mën naa yóbbu nit foofu rek mu ne balem ko lu am solo la dëgg la suñu dafa dafa atte nu ñuy atteeku njaaloo bu amee jabar nuñ koy def bu amul jabar nuñ koy def ba mu ca noppee nag mu tàmbalee fa nag ba saar wi jeex lépp luy yóbbu nit foofu rek mu ne déedéet bokk na ca wa anki wal ayaama minkum wa saalin min ibadikum imaayikum bu leen bàyyi jànq bu am ñaar fukki at amul jëkkër gën na ko sofel sax nag mm. gaa yi ñoo ko tudde mariage précoce rek Mm-hmm. ndax boo demee pencum laayin mii. Mm-hmm. ku ngénte ba ngoon dañ lay maye. dëgg la takka la mm-hmm. am déet. xale bu góor boo xam ne bii am nga vingt cinquant ans dañ lay may jabar. dëgg la jiitu la. sunu ne. in yakunu fuqara yuxnihimu llaahu min dara man danaa leen jox. ne booy dem kër kër Cheikh Mbacke. bala ngaa dem na ne ko danaa ñëw sa kër heure sàngam lay ñëw. bul ñëw avant heure bul ñëw après heure. nekk boo ñëwee ci heure bi na nga ñëw ba ci buntu kër gi nga yëgal ko na ñëw nga taxaw nag di ko xaar. yëglul yëglul yëglul taxaw di ko xaar bu dee bu dee élément kër gi la élément yi kër gi am na heure yoo xam ne bu kenn dugg ne kenn salaasu la lakum mm-hmm. suñ dimbalee nit nag foofu muy jigéen ju ndaw wala ju mag buñ ko dimbalee foofu mën naa am sens bu rëy ci raw buñ ko dimbaloo foofu nag. mën naa am yoo xam ne da koy da koy tegoo te su boobaa duggan ci moom duggan ci penc bi. oustaz ndekete njaaloo ndekete yoo njaaloo am na fu nit di tollu ndekete jigéen dama koo dégg ci penc mi de ndekete am na fu jigéen di toll su njaaloo wee du am bàkkaar. ah du garaaw. fan. bi maanaam ñu ne nit am na fu muy xiifee ba lekk lekk yàpp mbaam. dagal dagal ko. wala medd ndekete jigéen am na fu muy toll mën a njaaloo te du goraaw du am bakkaar ci réew mi laa ko euh, déggee nag damay laaj njaxasa nga noonu mu doy waar njaxasa nga noonu mu doy waar d'abord xiif lekk yàpp mbaam waxuñu ko mhm. medd lañ wax medd ku loru nga xam ne fi ak barab sàng mënoo fa gis loo lekk daggal ci medd mi lakk te lekk dag ci ngab bis bo gisee lolek ah, la la la haram d'accord lu deug lol nak ci med kep lañ ko maye wuñ ko ci sangara ndialo gi bokk ci wuñ ko hmm sàngara wuñ ko ca wuñ ko ci yap manam jigen jo ay njabotam xif na ñu mu wara dem jaay bopam pour ñew dundale ay njabotam lolo lolo du ci du ci te bu len dundalu ci lolo njabot gi dañuy dañuy loro njaaloo gi du dagan yonent bi nee na sallallahu alayhi yàlla araamalul dara ba noppi loolu di leen faj mbaa leen di arrangé maa jaala fi ma harrama aleykum shifaakum d' donte bu jigéen ji njaal njaalowul doom ji doom yi dañuy dee déedéet xam nga doom yi duñu dee hmm. damay damay damay jaay suma pour pour dundal sama doom yi loolu la lislaam deful fenn dëgg la hmm. mu des nag ñun ñii nga xam ne ñoo dëkk ak noonu hmm. bu doom yi deexee suñu borom ne yéen ñëpp a ñun ñu ko maa la ko wax de. d'accord laa ahadukum. Hmm. man baata sabaanan. waaw wa jaaruhu jaa'i wa ya'lam. Mhm. yonent bi nee na ku dëkk nit. Mhm. reer ba suur tëdd. Hmm. yëg ne moom réerut gëmoo yàlla. tey allahu akbar. yow yow yow moom gëmoo yàlla. Mhm. donc yooyu amee yii yii ñuy wax nii. di ko di ko di ko nattaka def. am. yaa Seydou. Hmm. Saloum dafa lenn loo xay ne Seydina Cheikh Ahmed Tidiane. radiyallahu anhu al maktum da ko waxoon. nee na kuy waaroo. ci tele ak ci rajo léegi nga réer. léegi nga dëgg la nee na kuy déglu waaraate. Hmm. fekkee ci waaraate rajo yeeg télé yi ngay defaroo roon nga réer. surtout yi xew sax léegi. xam lu tax Seydina Cheikh bi mu koy wax dani tariixa yi dañoo amee nijaay. Hmm. waaye diine ji amul nijaay. ndeysaan. bi. am na nijaay waaye diine ji amul nijaay. Mhm. ça veut dire que tariixa bi tey boo ko laalee am na ñoo xam ne danañ jóg léegi jor ay kuur mbaa ki xeer. Mhm. mbaa xool ba foo ne ñu jàpp la duma la ba nga nekk nit. mais diine ji bu ko kenn laalee dara du la ci fekk. léegi nag dafa am ay prêcheur ay ay ay ay. waaraatekat dafa am ay waaraatekat ay mhm. soi-disant oustaz. yoo xam ne ñoom doxuñ ci succès mais dañuy dox ci buzz. di njëkkante tey bëgg naa tey ñu tudd ma bëgg naa tey nangam ma. ñoom dama yaakaar ni foyee gi ñuy foyee diine dafa dem ba jéggi dayo mm-hmm. ba léegi pëccëxoo am xet sa wala boog euh, hadis wala boog euh, aaya bu waay neex créé wala aaya bu neex waay teg ko tekkee ko nu la neex pour wut ci buzz. c'est-à-dire mm-hmm. que buzz moo leen toll foofu jaral leen foofu. bu fekkonte ni si nit ki wax na naka sulul dul noonu parce que am na ne wax yoo xam ne di ko véhiculer. Mm-hmm. da ngay tukkal àdduna. maanaam ki dem ba taxaw. bëgg daganal takk suuf kooku mi ngi bëgg indi musiba yàlla bëggul lu ñaaw ndax xat yi man su ma dee góor maam dem takk takk suuf nëbb ko sama awa, bis bu ma faatoo beneen problème de mi ngi ñëwaat sama kër. mais est ce que takk suuf araam na tam. Cheikh non non yaa Seyda loolu sax dina ci loolu sax dina ci ñëw. xaaral xam nga tax est ce que takk suuf araam na. xam nga tax di wax jooju. parce que man su ma ko defee tey. Mm. ma faatu baa bi sama njaboot sama njabot gu màgget gi ñew ci sama njabot gi bes ci njabot gi lañ bok ñom dañu xulo bu duñ ma tala ñaanal l'islam bëggul lu ñaaw ta jabar mere la ba du la ñaanal ta jabar dalay mere ba du la ñaanal mm. mo leen wara teñ ñen fukki guddi de mais do jot l'ikhlasam parce que trahir nga ko trahir nga sa njabot l'islam bëggul lu ñaaw inshallah mm. ya sayda wa oustaz lu ñaaw ak lu dagan lool la bëgg mu leer est ce que tak suuf tam dafa araam ñaari tak suuf ñu am mm. benn bi mooy góor gu ragal aawoom dem ci ma takk fa jabar di ko nëbb Sidi Diop bàyyi la nuyu waa ci te jaar na ko ci yoon ci yoon hmm. maanaam aawam rek a yëgut ndax da koo ragal da ragal aaw bi la rek aaw rek ñaar nañ bokk boobu dagan na mais hmm. même boo ko même boo ko nëbbee sa aaw dagan na mais bu ko yëg même bu ko yëgut waa xam nga ci benn kaa bi laa nekk mooy kii dafa ragal aawam. Mhm. dem ci ma xam mbaakol takk fam ñaare. Mhm. mais ni mu ko takkee mooy am nañu ñaan. Mhm. am nañu maye. am nañu xutba. am nañu seede. waaw kilifa am na. kon sëy bi day valable. kon loo takk suuf la saa su loo takk suuf de. mooy benn pàccu takk suuf bi. dama ne la ñaari takk suuf ñu am. muy benn. benn baa ngi nii. ayca léegi nag dagan na mais. mais ji mooy bu waaji faatoo. loolu mu doon nëbbu te takkoon ko ciil ma xambaakool mhm. day feeñ dëgg la bu feeñee ginnaawam faatu bàyyi fi coow lu kenn xamu nu mu toll mhm. ay bokkam jéppi ko mhm. d'accord beneen bi mooy Mor Xuja ak ñoo toog rek mu ne ko may ma sa bopp yombe na noonu sa ah, boobu beneen question la boobu dafa am solo dañu ko laaj non Cheikh na taxaw premier maanaam danga ni bi nga njëkk a wax léegi leer na ni kon takk suuf bi daggan na mais dafa am conséquence. waaw nga wax. waaw loolu loolu loolu nga wax. loolu laa kon dagan na. waaw am na conséquence. dagan na ci suñ ko defee nee. waaw waaw. mais am na conséquence d' accord. Euh, loolu laa euh, bëggoon nga wéy fi mu doon wax. fi am na solo ñu bàyyi ko rek mu daaneel ko. deuxième boobu waaw yaa ngi seetlu ñoom tamit. moo xool sa pëcc xoolaa wax. boobu si pëcc ko di fere diine ji nu mu leen neexee pour wut ci bës. boobu su boobaa. Mm. l'islam du ko validé. Mhm. d'accord. bii nii l'islam du ko validé. ah bi mhm. li nga wax léegi suñu cheikh. am solo lool. mooy Sidna Ali doon wax ne. bu ngeen bàyyi nit ñi wax ba nga xam ba ngeen xam ñi war wax. ñi war wax na ngeen leen fay ñu noppi. tey. ñi war wax ngeen fay len ñu wax. lu am solo nga wax. Hmm. ñu war a wax nañ leen fay ñu wax ñu wartu wax ñu fay leen ñu noppi. parce que am na masala yoo xam ne ak question yoo xam ne mun euh, ñii sax mun nu ko indilee nu gàpp hmm. Hmm. am déet donc mun la ko indilee nga dem ci téere orientaliste yi mën nga cee jëlu masala ñëw ne ko ci penc ba bëcc toj fii ñëpp daal daar seen i nopp. dëgg la. booba àdduna ji tukki lay doon. Mhm. lislaam ñëwee wutoon noonu nag. Mhm. dafa ñëwee woon noo xam ne day am sutura ami teggin am nuñ koy defe am lu ñuy tere am ay communication. Mhm. ba suñu borom ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati amul bàyyil jërëjëf ci laaj ba am solo bi. jërëjëf allah Cheikh mën nañu yëkkati. waaw waaw mën nañu euh, yëgal tuuti gars yi oustaz ah. euh, jotaay bi macha allah. xam-xam nañ gën lii moom. Ah. rajo yoo xam ne ni ko yaasal yoo xam gars yi dafa sew ay sew sew ay nuance yoo xam ne faaw mu leer. bu paree sax bu ñuy paree dina ñëw ci boobu noonu wax beneen bi. bëgg naa gars yi bëggaat dafa mel ne li moom kii di Malick ah. euh, yaamal la ko kon fa yekkoon. waaw gars yi namu nañ ko de. Mm. sama papa mbay bi maa ngi la koy may ndax <laughs> téléphone sax moom lay sonné maa ngi lay ziyaara baax